Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla auzu billah bismillah inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk internet yi nga xamante ni yéen a baaxoo seetaan seen télé bi nga xamante ni mooy Salam Vision di jàmm ju ànd ak kii ñi ngi am mbégte tey li koy sabab itam mooy fi nga xamante ne fi lañ ñëw ak ki nga xamante ne moom lañ seet si bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci biir xam lenn itam ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla jagleel suñu borom la waaye itam lenn itam ci yërmande yi nga xam ne suñu borom jagleel na ko ko ba mu ciy taxawu doomu aadama yi rawatina àdduna wërngal ci biir émission bi nga xamante ni moom lañ leen dippal digtal saa su ne muy faj sa jàngoro tey ñu ñëw fii ci Zac Mbao fas yéene seet suñu jëwriñ suñu xarit suñu wëllëre waaye suñu njaatige ñu gën ko xam ci Cheikh Chérif assan moom lañ seet si bëgg a waxtaane waat moom lenn ci xam-xam rawatina li nga xam mi ngi ciy yëngu di ci dimbali itam doomu aadama yi saa su ne muy ci biir réew mi ci bitim réew ak fu waay mën a nekk ba mën a jokkoo moom rek mi ngi ciy dimbali jaamu yàlla yi bu baax a baax a baax a baax macha allah rabbi ba tax tey ci jaar-jaaram yooyu ñu ñëw seet si ko bëgg a waxtaane waat ak moom ci biir jotaay bi kon ni ñuy def rek mooy dañ koy daal di nuyu siyaare ko waaye daal di koy dalal ci biir jotaay bi daal di koy wax ni ko Cheikh Chérif Assane salaamaaleykum wa rahmatullahi taala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 ñi nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp di leen ndokkeel ci weeru màgg wii ñu nekk muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne eh, lépp loo xam ne dafa xëcc rek jëm si yonent bi sallallahu alayhi rek loolu mooy li gën li li nga xam ne xëccut jëm si moom ndax yàlla moo ko jagleel weer woowu nag ñu war si ndokkelante ndax guur yàlla yi dañ ci daan ndokkelante saa bu weer wi terwaan mm-hmm. dëgg-dëgg kon ñu ne ñu ngi leen siy ndokkeel di leen ñaana yàlla bu baax di ko sàkku si yoo na ne ñu ngi fas yéene def ak yéen waxtaan boo xamante ne dina làmboo yu bëri muy waxtaan pour laaxante biir ndax addina nasiha addina laaxante biir la mm-hmm. donc loolu moo tax ñu fas yéene waxtaan ak yéen si yenn ponk yu bëri mm-hmm. euh, li ci liñ ci gën a taxaw nag pour bën koo def mooy euh, dimbale jaami yàlla yi rawatina si lasraar mm-hmm. rawatina si fajum olof nga xamante ne dañ koo jàng ba yàlla may ñu si euh, tawféex daal ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu alhamdulilah. jërëjëf Cheikh Serif man moom Cheikh Serif Assane rek laay wax xam naa ne nag waaw li ko sabab man xam naa te di ngeen ci xam dara incha allahu rabi ndax nee naa ku jëflanteeg moom di nga xam ni macha allahu rabi rawatina ku dégg kàddoom xam ni tam wax dëgg yàlla nit la ku bëri yërmande waaye nit la koo xamante ni tam macha allahu rabi ku yëngu ci social la te loola itam incha allahu rabi ci kanam rawati bët waaye sëñ Assane tey jii bu ñu doon laaj tey jii fan mooy cosaanu sëñ Assane ak li nga xamante ni tey jii yaa ngi ci nekk di ci yëngu naka la dikkee gannaaw bi nga xam ne gëstu am na ci jàng am na ci itam te wér na ma am naa lu ma ci xam. ok jërëjëf sëñ Talla ñu ngi lay nuyuwaat bu baax macha allah di am mbégte si li laaj. Mhm. dañ ne nit ki soo ko bëggee xam rek laaj ko cosaanam. Mhm. laaj ko tamit ay mbokkam. Mhm. laaj ko ku ko yar. Euh, te ñun ay doomi saalum saalum lañ. ñu ngi juddoo saalum dëkk bu ñuy wax Fakala. ci wetu Gàmbi mm-hmm. foofu mooy suñ cosaan fa leen juddoo yaroo fa màggee fa mm-hmm. ñu ngi jàngee alxuraan dëkk bu ñuy wax Medina Baye mm-hmm. foofu lañ jàngee alxuraan ba yàlla may ñi si lim ñi si may ñu wëlbatiku dem jàng xam-xam gannaaw buñ fa jógee nag ñu dugg ci àll bi ndax li may wax rek tey ñaan yàlla dafa bëri ñu koy def waaye ku ci nekk ak sa fànn ndax xam-xam moom kenn du peeg lépp mm-hmm. ndax ker boo demee ba jàpp ne xam nga lépp mm-hmm. euh, la nga dese moo ëpp la nga xam wallaay lazim wax nga donc biñ jàngee ba yàlla may ñu ñu ñu ñu ñu xam dara ci alxuraan bi mm-hmm. jàng xam-xam daal di fa jógee dugg ci àll bi ndax yàlla moo ñu jagleel gàncax gi pour mu ñuy dimbale ndax tey tubaab bi li ñuy fajee yëpp gàncax la waaye gannaaw loolu ñu am ay tegtal yoo xamante ne dañ ci sukkandiku nga xamante ne niñ ci xamee lu baax noonu lañ ci xamee lu bon ndax mm-hmm. xam-xam doo jàng lu baax li kese da ngay jàng li nga xam ne luy lore la mm-hmm. jàng liy defar mm-hmm. ndax ëllëg si biir loolu moo ñu dugal ci loolu ndax li ñuy wax li ñu tax a jàng xam-xam dëgg ba si jëriñee di si jëriñu dëgg-dëgg loolu xaal la woon si ñun sax looloo tax ñu dem jàng. waaw xam naa ne nett ni ko di allah ci relève bu am solo boobu ni nga ko waxee itam mu doon lu am solo wax dëgg yàlla ndax euh, euh, mag ñi dañ koy faral di wax xam-xam moom bu bu bu jëriñewul rek daanaka amul njëriñ te wax dëgg yàlla wax nga kon donte bi nga koy gëstu ji xëy na àll la woon tolluwaay la woon ba taxoon nga dugg ci waaye bi nga ci duggee itam li la ci ba moom xam naa ni dëgg dëgg dëgg mooy yërmande suñu borom ji rek moo la ci ba macha allah rabbi te am na ci lu ñu ci xam macha allah kon ñuy santaat yàlla bu baax a baax ñu xool ci wàll wi wax nga ko léegi xam-xam kenn du peeg lépp foofu danga dama fay def taxaw seetlu ndax tey dafa bëri ci réew mi ñi nga xam ne ñi ngi woote ne ay sëriñ lañ wala ay fajkat lañ wala ay ñaankat lañ da nga cee gis ko toog wax ba yàgg fëgg dënnam fàtte si yàlla suñu borom fàtte ni moom peegut lépp dafa am rek luñ ko ci mosal fi mu ne xëy na mu jéggi dayoom wala mu jéggi tolluwaayam mu jàpp ni peeg na lépp war wax nga ko léegi nee nga xam-xam kenn du peeg lépp est-ce que tey jii ki yàlla dénk xam-xam mu nekk ci di ci di di ci di di ci di di ci jéem di ci fexe fexe di ci dimbali doomu aadama yi fëgg dënnam dana ko may ndam wala est-ce que du yàq liggéey ba muy liggéey ci biir doomu aadama yi la mu leen fi mu nii loolu liñ ci wax. Mhm. lu yomb la te tegtal bu yomb la. incha allah Firawna sax bi mu bàkkoo la ko suñu borom. dégradé dafa am loo xamante ne daanaka nit ñi. Mhm. dégg am na loo xam ne ku ko man sax doo fëgg sa dënn di yóbbu. Mhm. Eh, ñun dañuy sant yàlla si loolu waaye loolu yëpp soo ko gisee si yar la déparé. ñun suñu waajur da daan ñaan yàlla. ku nekk waaye fekk na ko fa. Eh, di ko ñaanloo yàlla. te lépp nekk si sutura. am na ñoo xam ne tey nit ñi sax wóoluwu ñuy dem si ñoom ñaan loo leen yàlla mm-hmm. parce que fu ñu taxaw ñu ngi bëgg ne mm-hmm. diw maa ko defal lii maa ko defal lii te ñaan yàlla sutura la mm-hmm. ndax mag ñi dañ ko daan def maanaam loolu suñu aada la suñu cosaan la ñaan yàlla dafa bokk suñu aada bokk suñu cosaan donc kupp koo xamante ne yaa ngi si war ngaa bàyyi xel sa bopp bu baax a baax a baax te dem gën a jàng gën a am xam-xam ndax tey ni ma gis man jamono bi di doxee dëgg dëgg damaa yéemu mm-hmm. te yonent bi moo ñu digal ne talabul xelmi ala faridati ala kulli muslimin wal muslimaat mi ne sàkku xam-xam de farata la si jullit bu góor ak bu jigéen mm-hmm. xam-xam na dafa yaatu waaye di nga gis nit di cëppi cëpp di wax di yuuxu maa man lii maa man lii maa def lii maa def lii mm-hmm. yàlla seeti na ne am na ñu toog seen ruq liñ mën ak liñ xam duñ duñ duñ ko wax fenn waaw moo tax it ñu si bëri si gàcce la ñuy mujj rek li may wax wax ban na convoqué nit ñi mm-hmm. am ci ñoom yomb na mm-hmm. waaye mu sax moo jafe ñu naxe ba am yomb na waaye mu sax moo jafe ñaan yàlla nag lu wér la mm-hmm. li may wax ne ñaan yàlla tey ji ñu si bëri tey gëmatuñ cangat gëmatuñ ñaan yàlla ndax li tax mooy dañoo dajeeg ñoo xam ne dañoo jàpp ne ay kilifa leen ñu dugg ak ñoom ci ruq nax lañ ba ñuy bëgg a dee jël li ñu am donc ñun ñaan yàlla li may wax alxuraan dañ koo xam dañ cee xam secret yoo xam ne ñun du ñëpp sax la ñuy jox alxuraan. Mm-hmm. parce que suñ la xoolee ba pare dañuy xam ne yow ku yelloo jëfandikoo alxuraan nga wala nekkoo du du doo ko ku ko yelloo. Mm-hmm. moo tax lu si bëri ñu ngi siy taxal nit. Mm-hmm. fekk na si sunguf ak ren lañ koy jaaree. moo tax yàlla may nañu si loolu si côté boobu alhamdulilah. macha allah ñu ngi siy sant yàlla bu baax. alhamdulilah di wax ne ñaan yàlla daal. buntu la boo xam ne. incha allah rabbi xam naa daañu ci gën a yaatal. incha allah rabbi yàlla may nañu ci lu bëree bëri. tubarkalla tubarkalla jërëjëf sëñ Assane ci leeral bu am solo boobu macha allah euh, bokk na ci sax ni nga ko waxee foofu laa bëgg ñu dugg see ci parce que comme mbir mi moom dafa bëri ay ponk bëri ay bunt bëri ay kër donc tey jii buñ koy xool yaa ngi koy wax léegi ne fi ne bëri na ñoo xamante ne dañ jàpp ni sax alxuraan moo leen war a moo war a saafara seen mbir alors que fi mu ne sunguf ak ren mën naa saafara seen mbir mais donc tey jii sëñ Assane ci wàllu seet wala wàllu listixaar lan la ci sëñ Assane di def day seet wala day listixaar wala day fanaanoo parce que ñu bëri tam dañu am problème ci différencier yooyu noonu. waaw xam nga foofu sax mooy bunt bi. Mhm. ñun seet yàlla ñu siy may. Mhm. Mhm. parce que dama ne kër gi boo fiy dugg si bunt bi ngay jaar. néeg bi nga jaar si bunt bi. seet nag mooy bunt boo xam ne. mënta ñàkk tey sëriñ boo dékk micro seet la lay wax. wala ku la woo mhm. seet la lay jéem a demande te nit ñi dañoo dem ba nit ñi nax leen ci seet ba xamatuñu fuñ jëm mhm. te seet lu yomb la nit ki soo ko seetee ba gis ko rek ñaanal ko yàlla dafay yomb maanaam nit mën nga ko seetal mhm. ñaanal ko yàlla génnee génneloo ko sarax te doo ko sax gis ay mbiram dox moo tax ñun seet yàlla may nañu si seet nag li tax ñi ñi ñi ci yàgg di tudd ñu yàgg ci am résultat yàgg ci am ndam du dara lu dul wéetal yàlla ndax yàlla nee na jaam bi du dañ di ma jegeñ-jegeñ lu man yàlla dinaa dem ba nekk ay ciram nekk nangam nangam maanaam loolu nag su ko yàlla waxee mooy jaam bi du dañ di góorgóorlu yàlla di ko may mm-hmm. te góor góorgóorlu gi mooy suñ kurus gi lañ yaakaar ndax mm-hmm. kurus la ñuy liggéey mm-hmm. ba suñu borom di ñu wan si mbiri nit te duñu wax nit mukk loo xam ne yàlla wanul ñu ko si moom rus nañ ko sax parce que problème bi mooy ñaan yàlla su si fen duggee dëgg rek ñaan yàlla gi dafay dëgg donc loolu moom mooy yàlla may nañu si si seet mm-hmm. dañuy seetal nit wax dëgg yàlla di ko wax si moom loo xamante ne moom sax dafay yéemu mm-hmm. seet nag dafa bëri façon ku nekk ni ñu koy defee ramlu dañ ciy seet mm-hmm. dañuy seet si kurus nit dinañu woo tamit ñu def suñu loo xam ne duñ ko sa wax si écran ñu def ko seetal la seet à distance waaw loolu tam dañ koy def yàlla may nañu si bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi si sant yàlla si côté boobu si ah. wàllum seet jërëjëf si ñaxtaan ci leeral boo am solo boobu nga ñu defal tam macha allah rabi léegi itam est tey jii seet gi tamit fi toll nii daanaka bëri parce que bëri na ci tey ñoo xamante ni euh, woote seetlu wala fay seen xaalis seetlu ñu seetal leen moo leen gën a yomb sax seetkat bi seet ba gis li mu gis génnee loo leen ay sarax ñu tëggoo def léegi gàllankooru gi ñàkk génnee sarax ci ki lay seetal ba pare ban gàllankoor la mën a def ak kan la koy def. waaw mm-hmm. ñi dañ leen a nax ba Euh, mën nañ la woo sax na la seetal ma nga seetal leen gis leen ñu toog seen kër mm-hmm. te xam na tamit rawxaan yoo xam ne di nit ki dina ko seetee mm-hmm. su la seetee gis gis la ba pare mm-hmm. la ca war defoo ko ba moytu da ngay gën a am problème moo tax ñu bëri dañuy jóg bala ngaa jóg di seetlu fexeel ba xam ne yow mii di nga dem ñaan waaye dangay gis ku dem tey seetlu ci sëñ diw jógee fa dem ci seen diw jógee fa dem si sëñ diw dañuy tourné nag jaxase sa bopp rek waaye da ngay doyloo nit nga dem si moom mu seetal la ñaanal la yàlla mm-hmm. boo fa gisee sa bopp baax na boo ko gisul nga xam ne ñaan yàlla dama ne ñetti mbir la te ku mm-hmm. nekk sax mën na ko daanaka parce que ñaar yi ku ne mën na ko mm-hmm. <clears throat> ñaan yàlla dangay jàpp ba set jël tur yàlla di ko liggéey yaakaar yàlla loolu suñu borom lépp la la mën a yenki wal am na ñoo xam ne nag tënna leen moo tax suñu borom ne ñaan dem ci nitu yàlla yaakaar ko mu ñaanal la yàlla loolu lu raisonnable la mm-hmm. te loolu suñu borom moo ñu ko digal yaay ngi mm-hmm. gannaaw loolu mooy nga am ñaanu waajur mm-hmm. parce que nit loo mën a def te amoo ñaanu waajur pour ñaanal la nga gis dafay jafe moo tax ñetti ñaan yooyu na si nit ñi bàyyi xel am na loo xam ne bu la ko nit ki digalee mu lay digal njëriñ bu la ko xeñee mu ngi lay xeñ njëriñ muy lan muy nit ki jéem a sàmmanteeg xaqi boppam ba noppi jéem a sàmmanteeg àqi jàmbur pour man koo defal lu lu koy jëriñ donc nag nit ñi ki leen nax moo leen gënal ki leen jëriñ mm-hmm. te man loolu dama koo xam nit ñi fi ñu toll ku fi koo fi wax dëgg mm-hmm. du ko gis moom safaan bi rek lay gis <laughs> donc euh, moo taxit li leen di dal di leen dal mm-hmm. ndax euh, wax dëgg yàlla am na lu fi mag ñi bàyyi te loolu noonu ñu ngi siy sant yàlla bu baax xam na lu ñu si yàlla jagleel si côté yu bëree bëree bëri alhamdulilah macha allah boo jógee ba doyloo yàlla suñu borom ba yaakaar nit jëm ca moom fexeel ba doyloo ko defe naa ne mooy li ci ëpp solo ba lu la wax itam nga jéem ca taxaw boo gisul résultat nag nga door a jëm làmbi jiwaat feneen waaye dañuy jël fi fukki sëriñ ak ñeent fi ne kenn ku ne ñu daan lay fay seet loola après boo paree defe naa ne kon gàllankoor la lay mujj a def wax bopp kenn ku ne génne loola sarax boo dajalee sarax yi mu daal di toll ci li ñaar fukki junni wala fanweeri junni loolu doo ko mën a ko te wax nga ko léegi après gàllankoor mën na la cee fekk ndax rawaan ba mën ko bu dëppaat sa kaw kon na nit ñi bàyyi xel ci loolu te xam ni tam wax dëgg yàlla nit moom da ngay wakkirlu suñu borom doyloo yàlla ba noppi door a doyloo doomu aadama boo doyloowul yàlla munoo doyloo doomu aadama donc kon loolu tam na ci nit ñi bàyyi xel wax nga ko léegi sénégalais moo bëgg ku ko nax tey ji dañu gis sëñ Assane toog sol lu oyofam yor kurusam oyof lool ñu ne ah kii de dara new fi dem fee ci man ca ca sëñ sëñ Samba sëñ Samba génne leen ay ay ay ay sër yu xonk ki darab yu xonk ki béjjee na ki sunguf ñu jàpp ne mooy waaja fekk na alors que fi mu ne daanaka romb nañu waaja la sëñ Fall doon wax bu ku romb nga ni du waaja moom da nga mujj dem ba waaja romb la nga naan waaja rombagul macha allah kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di di di di di doole ñaan ni sama borom gën laa taxawu ci wàllu woowu itam macha allah rabbi ma bëgg ñu am feneen fu ñu duggaat est-ce que sëñ Assane ci ñaan yàlla rek ci la yam wala est-ce que sëñ Assane mi ngi yëngu tam ci wàllu faj parce que am na lu ñu ma déey loo xam ne mosoo ma koo wax kenn ku kenn ku la waaye am na ko ma ku ma déey te la ma déey daal bëggoon naa ci am lu ma leeral. waaw xam nga ñaan yàlla dafa yaatu. Mhm. Euh, te ñaan yàlla sax métier la. ndax li tax mooy di nga toll foo xam ne si xaajoo jaam ñi mhm. dootoo am jot dootoo moom sa bopp. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla ñun dañuy ñaanal nit ci fànn yu bëree bëree bëri lu nekk waxuma lépp mhm. ndax mënuñu lépp waaye dañuy ñaanal nit rawatina ku am ay ay ay àndandoo mhm. muy wàllum rab rab dañ ciy ñaanal nit yàlla mhm. moo xam kuy crise la moo xam koo xamante ne euh, da dangay da parce que li may wax ñetti ñaari rab dafa am te benn bi moo gën a neex a faj mooy kuy crise ak ki nga xam ne crise parce que ki nga xam ne dafay crise mhm. kooku lu neex a faj la ki nga xamante ne nag crise mhm. te yow xamoo ne dafa am rab léeg-léeg sax da koy jiiñ reewaa nga wala yu mel noonu mhm. te loolu dafa bëri si askan wi am na ñoo xam ne da di taree sëy yi am na ñoo xam ne da di taree am jabar am na ñoo xamante ne da leen di def xol bu tàng fu ñu toll. Mm-hmm. am na ñoo xam ne itam dafay tëj seeni bunt. Mm-hmm. donc rab ak cat dañoo xaw a niroo lool. Mm-hmm. te bokkuñu te li muy dal nit di ko yàqal. moo ëpp lim koy defaral. nit dina dem ba nekk millionnaire rab jàpp ko mu dem ba dootu yor dara. mu naan dañ maa liggéey. moo tax léeg-léeg tam Sénégal moom lu fi dal nit te waxuñ la dañ laa liggéey yomb. <laughs> ba bëri na ci lu ci bëri. Mhm. nekkul liggéey maanaam. Mhm. Euh, cet. Mhm. day dem ba niroog liggéey. dégg rab dafay dem ba niroog liggéey. te ñett yooyu tant que sëriñ xamut ko pour nga ñaanal nit ki yàlla dina jafe. te ñett yooyu ñun yàlla dimbale nañu si. suñ ko xoolee ba noppi daañ la mën a wax ban la si. te nit li ñuy wax. soo bëggee faj mhm. te xamoo fu góom toolu si nit mhm. pour nga faj ko dina jafe sànq dañoo ubbee ubbee faatiha mhm. nga xam ne mooy léppi alxuraan lépp rek <laughs> nga xam ne si la faj ñi sin lu bëri ndax faatiha amul lu mënta saafara daay dégg alxuraan moo ne maa faral naa fi kitaab yi mi sayin lépp lay saafara donc ñun nag gannaaw buñ jàngee alxuraan def suñuy gëstu yemuñ ci ndax gannaaw buñ jàngee ba pare def suñuy gëstu dañoo gis ne tamit gàncax lu ama am solo la ci faj nit moo tax ci wàllu rab am na xeet yuñ ciy def yoo xam ne tey fu mbaam dëgg ba joggi mën nañ ci faj nit rab ci lu gaaw joggi joggi mbaam waaw yaa dégg mën nañ ubbi nit si lu gaaw <clears throat> mun nañ dindi cat nit ci cat ci nit lu gaaw damay wax ne dañuy faral di liggéey benn garab mm-hmm. benn sunguf la mm-hmm. maanaam ñun mun nga ñëw ñu jox la sunguf kese nga dem duñ laal sa alxuraan sunguf boobu bari na luñ ci mooñ mm-hmm. loo xam ne soo ko defee alaa kulli say mbir day tàkk yoo xam ne liñ koy liggéeyee garab yi yiñ koy booleel dafay bari mm-hmm. am na benn sunguf boo xam ne dañ koo doon si suñu way jur mm-hmm. juróom-ñaari garab la mm-hmm. garab ku ci nekk danga koy féetee côté bu ne nga xas ko soo ko xasee ba noppi da koy weer si ker te boo ko weeree si ker su paree jigéen ko gisul reegal moo koy dëbb sunguf boobu soo ko boolee ndoxu géej boo ko sangoo ku lay teree ubbee ko amul maanaam te kon boo koy xas da koy xase ci xibla yëpp. ci xibla yëpp. <laughs> war ci xam-xam. <laughs> xam-xam la. wallaay ndeysaan mooy. xam-xam du waxi kese waaye nag Sénégal tey bu fekkee sa làmmiñ neex na nga mën a wax dañ naan yaa téye bës mm-hmm. loolu la ñuy jàpp nag tey jii tey jii boo demoo boo téyee bës rek bëri xaalis waaye ñaanlootuñ si ki am xam-xam tey jii li fi maam yu bàyyi woon ñi ko doon dëgg ranguñu leen mm-hmm. toppuñu leen mm-hmm. parce que gëmuñu leen tey kiñ gëm mooy ki sol daraaxam ki war kaat kaatam ki ki ki kiy dóor marto maanaam ni ma ko mën a waxee ki toog naan ana ñaan yàlla ak toog naan làmb nangam nangam yow lay ñëw xaybu la yàlla moo ko xam làmb dafa xaraam làmb dafa xaraam looy toog naan diw mooy daan ak diw du daan ñu si bëri moo tax ñu si bëri sëriñ si bëri ñemeetuñ mhm. bu làmb di ñëw da ngay dégg diw na moytu na def ñaan na def lii ba yàgg nga ne pourtant waxoon naa ko mhm. nga gis koo ngay gis koo xam ne làmb day am làmb ji jàll mu génn pourtant waxoon naa ko rek te waxu ko woon waxu ko woon ndax li tax mooy ñemewut a wax xaqiqa bi ndax xam na ne su ko waxee mën naa daan wóolu tey ji làmb ji ñu doon ñemee wax ne di way daan bëreegul donc ay caaxaan la dañuy naatam ne wala boog buñ toogee xool benn borom xam-xam tey boo xam ne yàlla may na ko mu taxaw wax ndax xam-xam dafa yaatu ñoo xam ne koo xam ne yàgg naa wax di am résultat mu wax rek ñu sukkandiku si ñoom it wax donc xam-xam yooyu na si nit ñi bàyyi xel nit ñi nag ku leen nax tey suñ déggoon ne tey diw nee na Balla Gaye daan baala Gaye daan rek ñu sonal la kar-kar ju dul jeex <laughs> te pourtant Balla Gaye daan Balla Gaye daan loolu lu mu jotee yow nga ñëw nga ñaanal la yàlla dëgg dëgg <laughs> donc ñaan yàlla dafa am ay façon ah, ah. nit ñi nañ yeewu mm, mm, ñun dañoo jóg pour dimbale jaami yàlla yi mm. jóguñ pour dimbandikoo leen donc li tax lii wax lii nag dañoo gis ni jamono di doxee gis na tamit jaami yàlla yi ñu bari dañoo réer tey jii tey jii bëri na ñoo xam ne yàqule nañ lu bëri ci sëriñ ñemewuñ koy jooy fenn tey ñi nga xam ne dañ leen di tuddee ñoo téye bës bi sax boo xoolee ñu si bëri mënatuñ leen jot téléphone ndax naxe. surtout lu doy wax danaa ñëw <laughs> leen jot téléphone. Mm-hmm. léegi nag naxe yooyu ci laa bëgg ñu dugg lu ci bëri ñu décortiquer ko mm-hmm. décor ni ñu koy waxee. décortiquer ko décortiquer ko ba nit ñi yeewu. parce que tam ak diina nation ndax diina laaxante biir dégg la rek la looloo tax ñu ñëw fii pour laaxante biir jaamu yàlla yi jërëjëf Cheikh Cheikh Chérif Assane macha allah wax dëgg yàlla man mii def yow jotaay bi sax maa ngi am mbégte maa ngi am xol bu sedd ndax ci euh, dëgg gi ngay wax ndax dëgg moom yëfi suñu borom la alalu suñu borom la macha allah te wax nga ko léegi dafa bëri tey jii kër sëriñ li ñu koy waxee léegi sëriñ su bëri xam ne dangay dem seen kër boo fa demee tey fekk rang boo xamante ni lu ma téeméeri doomu aadamaa ngi rang est-ce que ñooñu ñëpp tey jii fi ne faj seeni soxla dina yomb ci benn saa te pourtant sëñ Assane da ngay ñëw këram doo ñaar nit duñ fi fekkante lu sabab loolu fi mu toll nii. waaw ñun nag loolu ñun ñoo ko ñaan yàlla suñu suñu neexoon suba suba nit ñi rang ni fees dell fii waaye su boobaa ñi ñuy sikk day bari waxuma nag amut man nag du ma weddi maqaama du ma weddi may. parce que yàlla ne wa anal fadala bi yadillaahi yuuti man yasa wala sul fadli asim yàlla moom ngëneel ci loxoom la nekk moo koy def si ku ko neex ak fam ko neexee mm-hmm. ñay toog xëy na rang nit ñay toog di nit ñi di ñëw ñay toog di def nangam nangam xëy na loolu mooy seen coobare yaa ngi dégg waaye dama gëm man li ma gëm laay wax li ma gëm mooy ñaan yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg da koy amal temps jox xàq ñaan bi génneloo nit ki saraxam defal ko ay cangatam mu mën a gis résultat bala ngaa dem si téeméeri nit fexeel kenn ki njëkk ñëw si yow nga defar ay mbiram man loo ñëw boo ñëwee si man ba ma ne la waaw waaw la ba ma ne la déet déet la te su ma ne la waaw bala maa bàyyante yow di nga gis résultat sa bopp te loolu moo am solo tey man ci micro laa waxee mm-hmm. benn doomu aadama ñëmutu taxaw kalaame ma te yàgg naa si ñaan yàlla yàlla suñ borom mu ngi ma ciy dimbale nag bu baax alhamdulilah donc ñaan yàlla daal ñun ay doomi saalum lañ euh, mën naa ne Dakar gan lañ fi waaye yàlla moo def ay mbiram rek ñu ñëw fi waaye suñu jëm waaye sax nekkul woon Dakar booy xool lu ci bari dañ koy faral di nekk saalum waaye mission bi mission ñu dox ko mm-hmm. ndax li may wax rek ñaan yàlla dafa yaatu te comme ñu dañ koo donn liñ mm. naan ndono moom li ci gën dëgg mm. su fekkee ñaari ndono moo am nag nit dina am dara fekk sax donn ko yàlla moo ko jegle nit dina am dara fekk da koo donn waaye gannaaw boo ko donn mm. da ngaa war a dem gëstu ji ndax xam-xam jàng da cee baax looloo tax ñun gannaaw buñ donnee yenn yi ndax la woykat ba waxoon doomu docteur la rek tax ñu jox ko ab malaat bu deewee moo ko rey donc ñun sukkandikuwuñ foofu si ndono gi kese dañoo doon ba pare wëlbatiku dem jàngi wëlbatiku dem gëstu ba moo tax lépp lu ñuy jëflanteeg nit rek ñu teg ko si siraatal mustaqim alhamdulilah li ngay wax maanaam nit da ciy teg baaraam da ciy teg ne wax dëgg yàlla mu doon lu am solo jaajëfalaat la bu baax a baax macha allah rabi wax nga ko léegi loo ñaanoon yàlla la moo tax bëggoo ay ñaar nit di fi daje ndax dama ko mas a laaj benn kilifa ne ko la moo tax ay nit duñu duñu daje sa kër mu ni ma waaw ki am soxlaam ñëw ci yow doyloo yàlla yaakaar la ci ñëw ci yow nga wili pande soxlaam as du ko def as góor du ko def moo tax man du ma bëgg ñaar nit di fi ñëw nga xam ne moom tey jii man ay rendez-vous bu koy joxe day maanaam dina fexe ba lu mu gàtt gàtt waxtu dox seen diggante ma ne ko waa sëñ bi est-ce que yow lii ngay def ni fi mu dina tax liggéey bi ngay liggéey fi ni daanaka jural la lu bari mu ne ma seetu ma lu may jural lu bari ma ñaanal yàlla kenn ñaan nga nangu mu gis ci boppam am ci tawféex yàlla gërëm ma man yaa ah, mu ni ma moo ma gënal ma dajale téeméer téeméer doomu aadama ku ne jox ma million macha allah te kon loolu moo ma waxoon dox boobu muy doxit dama ko gis nga di ko dox macha allah rabbi kon yow it ñoo ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di ñaan sa borom gën laa taxawu doon lay dëgëral taxawaay bi te gën guddal fan wi macha allah ndax wax dëgg yàlla ni ma ko waxee woon ku la dégg xam ne yërmande kese nga ku la dégg itam xam ne wax dëgg yàlla li ngay def itam maîtriser nga ko waaye yéene nga askan wi itam kenn ku ci nekk maanaam dimbali ko ndax li ngeen di faral di wax nit yàlla ba nga ko bindee ba pare coono gi nga ko war a teg moom moo ko ko teg beneen coono bu mu ko nit war a teg warta am macha allah rabbi baax waaye fi ma bëgg ñu dugg fi moom dafa doon benn point bu sensible ndax jamono yi léew mi moom bokk na ci li ko lëmbe ba tax na sëriñ su jóg sëriñ bu jóg garab bi ngay njëkk a lijjante ji mooy garab bi mën a faj ngóora ñi naan néew kattan ñi naan impuissance sexuelle ñi naan néew kattan ñi naan ngóora ñi naan kenn ku ci di wax ba gis naa ci ay sëriñ yoo xam dañuy toog di tudd awra di ko tudd tuddin woo xamante ni tuddin wu yéeme la ci biir télé yeeg ci biir rajo yeeg ci biir réseaux sociaux yi te jàpp naa ni loola moom fi ne daanaka bokku ci dara mais léegi sëñ bi néew kàttan dëgg dëgg dëgg lan moo koy sabab lu ci bëri pare parce que ñii nee nañ ndoxum siti ñii nee nañ hémorroïde kenn ku ne ak façon ba nga wax ne mooy indi moo moo moo moo koy sooke tey ji bu ñu la laajoon néew kàttan lan moo koy def ci doomu aadama bi ci dëgg ci li ngeen ëpp ci li ngeen di gëstu lan nga mën a tontu. waaw kay ñi ñëw wér-wér le xaw ma ngeen koy wax. Mm-hmm. faj sa jàngoro. faj sa jàngoro. Mm-hmm. ndax jaamu yàlla gën a ko rëy. ndax tey jamono bii ñi wér bariwuñ. Mm-hmm. Eh, te wax dëgg yàlla faj kenn nit mu wér rek. bu la ko suñ borom fayee àjjanaay sa kër. dëgg la. wax dëgg yàlla eh, dañuy sant yàlla bu baax ci côté boobu. ndax li tax mooy. wax nga liy joxe néew kàttan. wala laaj nga ñu ko mhm. laaj nga ñu ko nag ndax hémorroïde ak cité ñooy ndey yi ñooy ndey yi parce que li tax hémorroïde ak cité nekk ndeyu jàngoro yi mhm. mooy li tax loolu mooy li ñuy lekk mhm. dama ne la nit ki bu añee reer ndékki te demul toilette benn yoon kooku boo ko si bi kooku jàppal ne am na hémorroïde am na ndoxu cité parce que li tax moo am hémorroïde am ndoxu cité mooy yow añ reer ndékki war a dem toilette li nga lekk yëpp génn hmm. te yow gisoo ko sa bopp dëgg dëgg dëgg dëgg léeg-léeg air lay soppale ko moo tax léeg-léeg nga gis nit ki dem toilette hmm. air kese di génn mën naa saf dem toilette de mu dem ba si toilette bi hmm. air kese di génn léegi nag air boobu di gonfale si biiram air boobu noonu mooy dem ba yàgg mooy solu yenn mbuus yi muy waral ay ballon bu ko defee mbuus yooyu muy solu ñooy dem ba yàgg mbuus yi ñooy formé wu nekk picc léegi picc boobu mooy dem ba nekk émoride mm-hmm. moom lañuy wax olo moom la euh, saalum saalum daa wax picc kajoor picc kajoor moom lañ saalum saalum daa wax picc kajoor léegi picc kajoor boobu mooy am na yoo xam ne nag day génn moom ñu ne la émoride externe ak interne mooy émoride bi génn ak bi nëbbu léegi nag bi bi génn moo gën a neex a faj bi nëbbu moo tax ñu si bëri bu génn te loolu am naa si ay produits mm-hmm. yoo xamante lu ndaw la mu ngi sama saag bi koy jël boole ko ak karité boobu ci diwee rek bu dee bu génn bi la day dagg nga am loo naan mu raxas ko boobu ni mu koy raxasee mooy dalay lay tuurloo ndox lu baree bari bari am na ñoo xam ne mën na leen demloo toilette waaye ñu si bëri daleen leen di tuurloo ndox raxas naq bi raxas lépp léegi loolu bokk na si li nit war a kii lu li nit war a taxaw pour faj ko benn ñaare bi mooy siti siti moom képp koo gis yaramam rafet ñu hmm. jékki-jékki fi muy commencé mooy ay we nga gis we yi di ñuul hmm. di lakk hmm. weyi tànk yi weyi loxo yi nga dem ba yàgg karaw gi mu amoon di ruus kooku siti ñëw na ci moom léegi nag ñaari feebar yooyu dañoo bokk ndey ak baay nga xam ne benn bu dal nit rek toogal tuuti yaa ngi gis beneen léegi nag yooyu ñooy dem ba yàgg ñooy jur euh, néew kàttan léegi nag néew kàttan boobu su demee ba yàgg nit ki su demee ba yàgg euh, war a dem toilette demut toilette feebar yooyu di dajee si moom mooy dem ba juróol ko feebar yu bëri mun na dem ba jural ko jabet juróol ko tension juróol ko feebar yu bëri yu ñuy lim fekk na si ñaari feebar yooyu la jógee dama ne nit ki tànk yaa ngi lekk mhm. say organe di dox normal mhm. pour nga feebar dafay jafe moo tax sax docteur bi bi mu demee ba xam loolu dafa laa digal sport mm-hmm. ndax sport moom waxuma sax docteur bi waaye suñ diina moo ñu ko njëkk a digal waaw suñ diina moo ñu ko njëkk a digal moo tax ku nekk di tàggat sa yaram léeg-léeg dafay baax mm-hmm. ndax boo tàggatee yaram say organe daañ man di dox di mm-hmm. circuler circuler boobu ñuy circuler mooy tax ëllëg si bit tey ndox bu bëri boo ko doon naan moo tax ñi lay digal sa ngay naan ndox bu bëri ndax ndox bu bëri bu ñëwee dafay raxas ndax organe yi nga xam ne dafa nekk si nit ndox bu ndox bi ngay naan bu bari bu ñëwee mooy dégâts lu màgget mm-hmm. moom nekkaat fa bu yàggee boobu tamit nga naanaan ndox bu bari moo ko indi moo tax boo ñaqee mm-hmm. dangay seelu ne ñaq boobu dafa lay raxas mm-hmm. ndax kiy ñaq bokkul ak ki ñaqul moo tax kiy ñaq lu bari feebar du ko yomb ki ñaqul nag day dem ba yàgg oh, poogu yaramam yi bën bën yi ci nekk day fatt su fattee nag bu yàggee problème ngay am problème boobu nag moo lay jural lu bari di nga dem si téeméeri sëriñ na man nàngam nangam moo ma dal mm-hmm. fekk na yow yaa ko yóbbee sa bopp moo tax nit ki saa boo demee mm-hmm. dama ne moo tax dem ñiy jëfandikoo maanaam yenn pat yu bëri baaxul mm-hmm. ñàkk sport baaxul ndax nit soo añee reer ndékke demoo toilette xoolaata sa bopp ñun nag nit nit ku ñuul dañoo sàggan tànk demuñ ba quatre appuis li ma koy waxee <laughs> duñ duñ duñ jóg duñ jóg li tax loolu nag <laughs> moom maa ngi koy bàyyiloo xel ñëpp di ko bàyyiloo xel sama bopp. léegi nag loolu ñun am nañ ci produit yoo xam ne. Mm-hmm. daf koy faj. macha yoo xam ne po bi. Mm-hmm. soo ko jëlee di ko naan di nga gis ne da nga commencé dem toilette lu bari. Mm-hmm. di nga dem toilette lu bari déjà di nga gis ne bu fekkee da daan lekk tey euh, kilo mun ngaa lekk ñaari kilo parce que problème bi mooy li ngay lekk bu fekkente dafay am effet ci yow. dëgg parce que ñam bu ñëwee. Mm-hmm. du pour feesal biir kese. lekk tam lu am vitamine da ciy baax. Mm-hmm. lu am vitamine mooy bañ a lekk pat kese. Mm-hmm. lekk pat kese dina dem bu funkil nit waaye doo am doole. xam nga dama la koy misaalal. ñun baykat ne boo yoree fas. noor bi nga koy jox dugub. muy lekk. subaa ngoon dafay dem ba bu nawet dikkee. boo koy lonk machine di lonk fas woo xam ne daawut lekk dugub mm-hmm. buñ dawee tuuti da gis ne fas wee mooy gën a yooyu fas wi doole bi fas wi doon lekk dugub di am fas wala du mm-hmm. te ci bajantu yi sax da koy li muy am mm-hmm. kattan lëkkale du ko am léegi nag yow li nga war a jëfandikoo yow doomu aadama soo ko wàcc soo ko wàccee commencé di jëfandikoo yoo xamante ne dañ koo créé amul benn njëriñ nga koy lekk neexaay ba rek dugal la si su ko defee dangay dem ba yàgg dangay am problème. wallaahi da ngay dem ba yàgg tey. Mm-hmm. moo tax xale yi ñun fi ñu juddoo yaroo fa. Mm-hmm. lekk yañ tàmm tey guneeg foofu boo xoolee lu si bëri du bokk ak guneeg fii. moo tax li ñuy jàmbar tey xale yu bari man damay jaaxle nit xale yu ndaw ñooy ñëw ne la dama am problème mu kàttan. loolu man mu jaaxal ma lool donc donc xale 30 ans cinq ans nga ñëw di di di di di jooy di jàmbattale kooku boo amee 40 ans 50 ans foo jëm euh. léegi nag loolu jaaxal na ma lool li tax mu jaaxal ma nag mhm. mooy ndaw yi waaye nag néew kàttan du lekk kese moo koy joxe mhm. dama ci dugg di ko leeral mhm. ndax rab dina ko joxe sànq dugg nañ ci ma wax la rab ndax rab moom yàlla def ñu si may ñu am si xam-xam rab dina ko joxe ndax li tax rab di ko joxe mooy nit ki dina foowe boppam mhm. foowe boppam googu dana dem ba li ma lay wax ne rab tey bu doon sëy ak nit ki mhm. feles bu ndaw la day gaaw maanaam boo tëddoon mel ni kuy diggéent di sëy ak rab mhm. rab bi feles bu ndaw lay ànd ak yow nga daanu yëg sa bopp sa tubooy tooy léegi nag loolu soo ko tàmmoo soo ko tàmmee di ko tàmm si rab bi da nga dem ba yàgg bis bu ñu la indilee jigéen mënoo paase si moom deux minutes parce que la la rab bi tàmbaloon rek ngay continuer nit ki li mu tàmb rek lay wax nga hmm? li nga tàmb rek léegi nag su fekkente ne loola nga tàmb mm-hmm. faaw ñu jéem ko dindi si yow mm-hmm. ndax sidit lim taamu tey dama ne boo doon sport mm-hmm. di yëkkati tey euh, cinquante kilo man sport ma ma xëy ñëw bëgg a yëkkati cinquante kilos daf may scan moo tax ki nga xam ne dafay sëy rab bi pendant vingt ans trente ans dem ba toolu si ñu takkal la jabar mm-hmm. nga bëgg nag di am ak soxna si vingt minutes trente minutes waaye da ngay lor sa bopp mais doo ko mën soxna si sa waay na def lu ne doo ko mën parce que le problème mooy li nga xas taamu la li nga xas taamu loolu nag pour mu dëñ mm-hmm. produit bi da koy dindi ndax problème bi mooy mm-hmm. soo koy naan dina commencé di defaraat sidit yi waaye du ci yem dañu am cangat yoo xam ne ak ñaan yoo xam ne dañ la koy jox pour rab bi bàyyi la parce que soo rab foo fajee bii te fajoo bële du wér. kon faj gi moom faa nga cumulé ñaar yëpp. faa nga ñaar yëpp. Mm. ba nga xamante ne di ci mën a gis sa bopp. Mm. donc loolu tam ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp ñi nga xamante ne. Mm. tawat nañ ci côté boobu. nga xam ne tawatu émorite ak siti du si góor kese lay sonal. ñëpp lay sonal dina xañ nit ki mu bañ a am doom. dina xañ nit ki uh, mu muy muy muy muy muy muy mer fu mu toll ndax rab. ak ak yenn feebar yi ñuy tudd ñaari feebar la yoo xam ne ku amul xam-xam pour nga décortiquer leen dafay jafe dafay jafe lool donc xam-xam yooyu daal ñu ngi ciy laaxee biir yi ñooñu nga xamante ne mm-hmm. ñoo koy jëf ñooy jëfandikoo yenn yi macha allah waaw maanaam si wàllu lekk yi nañ ci bàyyi xel mm-hmm. nañ bàyyi xel ci wàllu àndandoo yi mm-hmm. ñaar yi buñ ci bàyyi xel rek néew kàttan dina leen kii uh, dina leen sori beneen bi mooy euh, jigéen ñi suñ ci bàyyee xel wàllu am doom dina leen yomb. incha allah incha allah. bala maa génn foofu sax sëñ bi bokk na ci question boo xam ne moom dafay perturbé sama xel bi jigéen ju dul yëg boppam moom itam lan moo ko mën a sabab est-ce rab la wala lan moo ko war a mën a def fi toll nii. waa loolu feebar la. feebar la moom la ñuy wax ñàkk bànneex ci sëy. Mm-hmm. Euh, la feebar la boo xam ne tamit dafay jóge ci biiru nit. Mm-hmm. ndax li tax muy jóge ci biiru nit mooy. Mm-hmm. sànq maa ngi koy wax organe dafa sensible di nga gis feebar yoo xam ne dafay dem ba dafay wàcc si nit ki mm-hmm. léegi nag su wàccee mm-hmm. wàcc bi muy wàcc dafay ñëw ba si awra mm-hmm. da gis góor ñoo xam ne seen awra day dellu hémorroïde bi mooy dem ba jàpp sëddi di di ko xëcc mooy tax seen awra di dellu moo tax su ma su ma juumul yokk awra <laughs> mën naa leen amul <laughs> yokk awra amul nit ku nekk nit ku nekk bi nga juddoo mm. da ngaa am awra bu normal. wallaahi. li ngay lekk di ko jëfandikoo. Mm-hmm. yooyu ñooy dem ba jàpp la feebar sa biir. Mm-hmm. di commencé di xëcc say sëddi. Mm-hmm. su koy xëcc nag day dem ba yàgg awra bi di dellu awra boobu nag pour ñu delloo ko am na waaye bu yokk awra parce que yokk awra awra moom euh, yàlla dafa am nu ko bindee dafa am ñoo xam ne seeni awra nii la mel maanaam dafa sew. te noonu mooy seen njiit laay moo mooy li leen li leen li leen yàlla bindee am ñoo xam ne dafa gàtt nii la leen yàlla bindee dégg léegi nag yow soo ñëwee bëgg koo yokk fekk naturel na mm-hmm. da ngay lor borom parce que yokku tey jii yow sa taxawaay mm-hmm. ku la bëggoon yokk dalay indil problème parce que sa taay ak sama taay bokkul yaa ngi dégg keneen ak keneen donc loolu ñu bàyyiloo si nit ñi xel mm-hmm. te xam jéem a fajal nit ñi seen feebar te bañ leen dund dundee daal parce que problème bi mooy nit ki su feebaree ñëwal fajal ko li ko dal ba pare mu mën a gis boppam sa sa sa la muy def ndax wér wér gu yaram li woykat bi wax soo ko defee di nga mën a bànneeku waaw kon yenn yàlla dimbale ñi bañ mën a lenn si feebar yi ñu dind ko ndax yàlla moo ñu bind boole ñu ak ay tawat mm-hmm. mënta ñàkk si ñun waaye su amee ndax yàlla nee na feebar bu ma wàccee kat indi naa la koy sax waaw kon alhamdulilah yàlla may nañu daal si gëstu si mm-hmm. xam ñu am ci loo xamante ne képp ku ñëw loo ñu tawatal mm-hmm. ñu ci xoolee lañ ca man ñu def ko ca la si def ñu bàyyee ko ko moom borom asamaan ak suuf te xam ne tëlewul dara tubaarkàlla jërëjëf euh, Serigne Cheikh Cheikh Chérif Assane macha allah man maa ngi maa ngi am maa ngi am contentement bu baax baax parce que nee fi ne gars yi ma dégg ñu naan dañuy yokk awra yëpp kenn newagu ci mën na wàññi awra te defe naa nit moom boo demee mën a yokk mbir war ko mën a wàññi mais mbir moo xam ne mën nga koo yokk te mënoo koo wàññi kon du dëgg su ko defee rek xanaa fi ma bëgg ñu dugaat fa rek xanaa mooy wax dëgg yàlla ni nga ko waxee parce que man sama xol bi dafa sedd tey li nga indi moom ci tey ji bëri na Serigne su bëri yoo xam ne ñu ngi fi te ko def li nga ñu ci indil ñun dafa dal suñu xel parce que ay nit lañu duñu ay gëstu nañu am nañu xam-xam ak kës néew kon xam nañ lu yenu maanaa xam nañ lu wul maanaa mais lii nga ñuy wax bu ba tey dafa dafa yenu maanaa beneen bi ma bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñëw ci mooy agression yi rey gi est-ce que tey jii loolu tey jii bu ñu xoolee parce que xam nañ ni bakkan moom yàllaa ko yor mooy rey mais tey jii rey yi nga xam ne mi ngi am ci réew mi est-ce que naturel na ci seen gis-gis yéen doon na loo xam ne lu yàlla fexe la waaye wala lu doomu aadama yi di fexeel seen bopp parce que dama dem ba mu jógi ma jàpp ne rey yi xanaa naturel lutul waaw jamono nag yaa dafa yàlla dafa am mu ko bindee mm-hmm. nga xam ne jamono bu nekk ak liy xew mm-hmm. li tax ma ne la jamono bu nekk ak liy xew mm-hmm. euh, rey bu bari gi yépp ci jikko yi la ndax yonent bi sallallahu alayhi yàlla daf ko ne wa innaka la ala xulqin aziim la ko taggee jamono bii nag dañoo yaratu ndaw yi ndax li tax mooy ndaw suñ ndaw ndaw loo xam ne dafa ñàkk yar mm-hmm. lu ne mën na koo dal ndax dañ ne ko amul kilifa jinne di sa kilifa te jinnekat ki mu doon sa kilifa mm-hmm. mën nga dugg ci lu ne ndax jamono bi li waral loolu mooy réseaux sociaux yi dañooy dañ lu dañoo yàq yàq rek li cëpp dañuy yàq dañuy yàq mm-hmm. waaye suñ ne réseaux sociaux yi télé sax da cee bokk ndax tey yàq bi dëgg dëgg dëgg dëgg ci tele yi nga koy njëkkee mm-hmm. doog a dem fële ndax bëriwut luy daw si internet bi te dafa jaar si tele bi ba nu leer dañuy wane ne dañ koy jéem a segg rek waaye lépp benn mm-hmm. léegi nag jamono yàqu gim yàqu noonu mm-hmm. ndax yàlla du digal jaam bi lu du njëriñam ndax yàlla amut lu mu ñuy digal loo xam ne intérêt am la julli gi ñuy julli bi intérêt yàlla ndax yàlla su ko ñëpp ñàkkoon jaamu du yokk si nguuram gi dara suñ ko ñàkk suñ ko jaamuwutoon tamit amut lu mu koy wàññi kon nañ ragal yàlla te xam ne yàlla ragal ko mooy lépp xam-xam sax soo ko bëggee ragalal yàlla ndax saa boo ragalee yàlla yàlla dina la jagleel xam-xam boo xam ne dëgg dëgg yow sax dalay yéem mm. ndax li tax mooy euh, boo boo ra moo tax boroom xam-xam bu ragalut yàlla ab saay-saay la rek dégg mm. moo tax boroom xam-xam dafa war a ragal yàlla mm. boroom xam-xam moo war a gën a ragal yàlla mm-hmm. ndax nekk royuwaay pour nit ñi mën koo roy mm-hmm. lépp loo wax nit muy dëgg mm-hmm. mooy li may wax nag jamono bi nag toll na foo xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. ñiy wax naka su dul ne leen gën a jox bopp que ñiy wax ñiy wax dëgg waaw su ma toogoon léegi kere fi bës def affaire yooxu nangam dama koy faj maa maa si man ñetti fan laa koy faj léegi tey léegi tey ñëpp wuy si waaye boo toxee wax leen liy xàq bi wax leen liy dëgg non duñ la sax li jënd waaw sëriñ yi nag ñiy wut xaalis ak ñiy wax dëgg dafa wute ñun ñaan yàlla la ñuy def mm-hmm. te képp koo xamante ne jox nga ñu sa xaalis mm-hmm. li war suñu diggante suñu yow daañ ko def li war suñu diggante suñu borom daañ ko def mm-hmm. yàlla nag mooy nangu ñaan ndax adduhaa u ul mu'minin nee na ñaan mooy ngàndaayu jullit dégg donc ñun foofu lañ sukkandiku te ñu ngi ci bunt boobu bunt boobu duñ ko wàcc mukk adduna duñu jey ba ñu wàcc ko te ñi jot a jëflante yëpp ñu jaar si benn mbedd sëgg. Mm-hmm. dégg surtout duñ ci wax tamit lu ñuy jéppee. Mm-hmm. alhamdulilah ci côté boobu ñu ngi si sant yàlla. macha allah soo gisee ma indi question boobu sax dama bëggoon ñu dugg si ci wàllu kaaraange ndax nit ñi fi ne réew mi moom. defe naa ne kuy dox ku ne fi ne kaaraange bokk na ci sa yitte principal parce que réew mi jaxasoo na àdduna tërëli na war wax nga ko te jamono bu nekk ak la cay xew ak ya cay ya ci kaaraange tey jii lan la ci sëñ Assane am loo xam ne mën na ci taxawu doomu aadama ba mu aaru ci lépp aaraale njabootam. alhamdulilah ndax xam nga li tax kaaraange am solo. Mm-hmm. jamono bii dañoo tollu jamono kaaraange. Mm-hmm. ndax euh, ñi fi nekk di def lu bon dafa bëri. Mm-hmm. tey jii boo aaruwut aar sa njaboot rek. lu bari mën na laa dal. ndax li tax mooy ñun ñii suñuy wayjur dañoo aar. ba lu bari mënut yegg si si ñun. léegi nag nit ñi aare nañ ko jéem a aare suñuy njaboot képp koo xam ne nag amoo secret lay war a aar nga dem si ku ko xam mu dimbale la si te bañ laa nax kaaraange nag yàlla daf ñu see may loo xam ne génnut alxuraan ji génn sunguf ak ren am na loo xamante ne suñ ko wutee boole ko ak poqay bii liggéeyal la ko defal la ko téere téere boobu ala kulli al tànk yaa ngeen moom accident sax boo duggoon ci oto sax oto bi këpp li nga mucc ndax kaaraange nit mën na koo defal boppam mën na ko defal njabootam ci loolu lañ koy liggéey boole ko ak aaya alquran li may wax nag man sama cangal lu ci ëpp léegi nekkul sax alquran donte nag alquran laay liggéey ndax li tax mooy am na ñoo xam ne duma leen jox alquran mm-hmm. parce que alquran gaawut ci ñoom tey demal sëriñ ñu bëri tey dem nañ sangu alxuraan bay bëgg dee gisuñ dara. loolu bokk na ci li tax ñu naan fi ne ni daanaka alxuraan fi ne daanaka sungu fa gën a gaaw alxuraan. alxuraan wàccut dëgg dëgg dëgg dëgg nuñ koy pratiquer jamono bi wàccut pour loolu. Hmm. alxuraan li ci gën mooy jàng ko. ndax yonent bi nee ki gën si yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale. tey soo doon jàngale alxuraan jàngalewuma ko mën nañ waar ne yaa ma gën. parce que boobaa waxu. waaw hmm? <laughs> waaye nag am asan mu toog jël ay kayitam toog hmm. ku ñëw mu jàmb jox la hmm. kooku ñu teg la nag foo xam ne yow yeggoo fa sax déedéet du loolu moo tax nag dinaa ñaanal nit jox la cangat waxuma duma joxe alxuraan la waaye li ma gën a xam gën koo maîtriser mooy sunguf ak ren ak fas ak takk wàllu noob dama ci yëngu waaye bala ma ci defal nit dara dinaa ko xool xoolaat noom moom alhamdulilah yàlla may nañu si wàllu boole muy wàllu kër ñoo xam ne dañuy féewaloo yàlla may nañu si loo xam ne dañ koy liggéey si ay jat ay fas ay takk ba ñëpp dem ñëpp nekkaat benn yaa ngi dégg wàllum bayre dañ koy liggéeyal nit ba nga xamante ni nit ki lépp lu mu bëgg am na bayre yoo xam ne moom suñ ko liggéeyalee nit ndax ër ba ñuy wuti garab gi moo tax suñ ko liggéeyalee nit mu sangu ko balaa ren di déwén dina siiw ba jaaxal ay bokkam te dina am ba jaaxal ay bokkam parce que nit ñun duñ la jox bayra kese lu dul dañ laa jox kaaraange ah, waaw parce que xam xamalu mm-hmm. nit ki saa bu saa boo ko joxee bayre te aaroo ko ba loroo yaa ko lor moo tax ñun dañ lay jox bayre mm-hmm. dañ lay jox kaaraange ba noppi jóg laa jox bayre mm-hmm. nga xamante ne dina la musal dina la mosal parce que le problème mooy suñ la joxee ñaar suñ la joxee benn bi rek te li may wax léeg leen nga gis sama mbokki séeréer yi nga gis koo xam ne day takk si ndigg li ba si dënd bi <laughs> te pourtant léeg-léeg boo demee lu mu dépense oo amu ko parce que dafa dafa dafa jóg mm-hmm. pour aar boppam te jógut pour jéem a ubbi boppam parce que saaboo boo liñ naan la waa ji daa wax mu ne xam-xam bu àndul ak xaalis mm-hmm. daanaka xam-xam la rek waaw mi ne xam-xam mm-hmm. bu fekkee àndul ak xaalis xëm-xëm la rek ndax duñ la soxla duñ la def ngay nit ndax tey la problème mooy loo bëri bari bëri bari xam-xam mm-hmm. yoroo dépense di dem di ko xàbbaatu wala di ko ñaanaatu bu mm-hmm. ñu respecté sa xam-xam loo bari bari bëri bëri bëri xam-xam hmm, amoo dëkkuwaay di di kii si mbedd yi mën nañ la dajee jël téléphone ngay wax ah, ñu enregistré hmm. waaye duñ la safoo moo tax duñ la nawloo moo tax xam-xam bu àndul ak xaalis wilaaya bu àndul ak xaalis xamul njëriñ moo tax yal na yàlla may ñu la oustaz Alioune di ñaan yal na yàlla may ñu hmm. alal ju bari hmm. yàlla def suñuy poos ba fees dell ak alal def suñu xol yi yàlla ba mu fees del mm-hmm. barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah jërëjëf euh, sëñ Assane ci leeral bu am solo boobu waaye jërëjëf itam ci waxtu wi nga xamante ni wax dëgg yàlla jagleel nga ñu ko ci biir euh, sa xat-xat li muy xat-xat-xat nga ñu waxtu wi ñu mën ko toog waxtaanee waat kook yow waaye li li ma ci gën a neex gën ma ci itteel dëgg-dëgg mooy mbooleem liñ fi waxtaanee lépp ku ko déglu ko ne di nga xam ne lii sëñ asan di wax xam la dëgg la uqa la te yëfi suñu borom la parce que lu leer la lu mel ni midi loo xamante ni daanaka du lu ñuy jeex déedéet du lu ñuy jeex déedéet loo loo lu waaye di teg bëtam la macha allah sant bu baax a baax la ñuy def xanaa rek laaj la la mooy doon tey kaddu yu mujj yi ak message bu fekkente ne am nga message boo xamante ni war nga ko lancer askan wi nga xamante ni ñoo toog di la seetaan fi biir télé bi nga xamante ni ñoo la seet si woon tey jii di ci waxtaan ak yow. waaw li ñuy tàggatoo te moom lañ commencé euh, waaye di wax tam man laa yaskuru naas wala yaskuru ndax ku du sant nit du sant yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaana yàlla waaye di ko sàkku si yéen ndax ku nekk mën ngaa ñaanal keneen ku la ndax yonent bi sallallahu alayhi moo ñu gën ñun ñëpp tey ji saa buñ jullee dañuy wax nangam ak nangam hadiyaay yonent bi mm-hmm. sagam moom moo ñu gën gën ñi lépp mm-hmm. ñi koy ñaana yàlla ñu ne nañ ñaan laan donc maa ngi leen di gërëm di sàkku si yéen tamit ñaan waaye di leen ñaan yàlla di sàkku si ñi ñuy seetaan wala ñi ñuy déglu ñu ngi sàkku si ñoom ñaan te di leen ñaan yàlla tey wax ne eh, yal yàlla def ci réew mi jàmm élection yi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal mm-hmm. ndax réew mi nag dëgg la ñaan am na fi waaye faaw ñu xoolaat jikko yi mm-hmm. xoolaat yarin bi mm-hmm. ñaan fi jàmm ndax jàmm du doy ndax lu dul jàmm rek jàmm ko gën donc ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm di ñaanal euh, opposant bi di ñaanal pouvoir bi mm-hmm. nga xam ne ñoom ñëpp lépp li ñuy wut yëpp àdduna la rek suñ ci jiitalee nag yàlla rek yàlla mën na koo rafetal waaye buñ ci jiitalee seen bopp rek mën nañuy gaañu te xam ne dund bii mm. nit a ngi yóotu loo xam ne du lu gën ci moom nit a ngi yóotu loo xamante ne ker bu si jotee moom lañ koy dajale mm-hmm. loolu na si nit ñi bàyyi xel te dund bi dafa gàtt mm-hmm. dund bii dafa gàtt lool fi ngay amee trente ans yaa ngi xëccoo loo xamante ne wóoru sax di nga am cinquante ans jamono bi ñu fi am soixante dix ans bëreetul kon maa ngi leen di ñaax di leen digal ñi koo ragal yàlla tax takkoo muñ ndax inna laa ma sabirin yàlla nee na maa ngi ànd ak woy muñ yi kon ñu leen di ñaana yàlla di wax ne liñ bëgg a wax yépp xajul ci benn jotaay ndax xam-xam dëgg-dëgg su la yàlla mayee dara soo duggee rek géej la da ngay bëgg di féey di dem rek loolu tax ñu bëgg ñu comp ci lenn ci li ñuy yëngu pour dimbale ci yenn jaami yàlla yi du ñëpp nag lañ mën a dimbale waaye loo gis dimbalante la ñun képp ku ñëw si ñun ak loo mën a ñëwee daañ la dim daañ dimbalante ak yow dégg nga loo mën a ñëwee daañ dimbalante ak yow kon lépp loo waaye indi si ñun mm-hmm. muy tawat muy yaakaar muy lu mu mën a doon mm-hmm. yàlla na suñu borom saafaraal la ko si anam ak wér barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran barke mboolem ku liggéeyal yàlla ba am ngërëmam barke allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf euh, sëriñ Assane ci leeral bi wax nga ko sànq tàggatoo man moom dama doon xaar nga pare man la tàggatoo buy niru tàggatoo waaye du doon tàggatoo ndax wax dëgg yàlla man moom danaa ñëwaat danaa ñëwaat danaa ñëwaat ay yoon ndax nee naa li ma fi gis dal na samam xel euh, doy na ma itamit ndax wax dëgg yàlla ndaw ba noppi wax dëgg yàlla am yërmande ba noppi wax dëgg yàlla li nga xam ak as nga di ko wax li nga xamul tam xamuloo ko waaye itam li ci ëpp solo mooy wax dëgg yàlla yéene ji nga xam ne am nga ko ak dal ci yow itam macha allah doon na loo xam ne kawe na suñu njott fees na suñuy bët sori na ci suñuy xol macha allah ñu di la ñaanal yàlla sama borom mu dolli laa taxaw dolli guddal saw fan gën a wéral say cër ba mbooleem naa li nga xam ne naalal nga ko askan wi sama borom defal la ci lu kawe njot ci dara ji yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni nga ko ubbee woon rek ci barkeb weeru gàmm gi nga xamante ni moom lañ dëgg lañ nekk ni jóge ci bërki démb wanjaay wax dëgg yàlla kenn ku ne gis ko moo xam sa dëkk ba Medina Baye moo xam Tiwaawan moo xam fépp foo xamante ne rek wax dëgg yàlla euh, ndawi yonent waa nga fa rek wax dëgg yàlla nañ màggalee guddeem ga maanaam kawe na njottu rëy na lool taw yu met taw yu bëri yi fi taw yëpp kenn ku ci ne gis ni loolu lépp ay xéewalu suñu borom la yoo xamante ni wàcc na ci guddi googu kon macha allah rabbi weer yu barke gi mu am yàlla nañu yàlla taas ci barke ba bu defal ñu jàmm comme ni nga ko ñaanee rek ñaan ci réew mi tam sama borom def fi jàmm dolli ñu sutura aar ñu làkk ñu fu yàq yeggul musal ñu te mosal ñu rek wóoru oustaz Aliou Sall jox leen dig daje incha allahu rabbi taala ci suñu yeneen jotaay xam-xam ci seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro waaye di leen wax ne teg leen foofu seen baaraam. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla